ñu ne que dañuy wax nga ko sax yow sànq dañuy politiser euh, emploi yi nga xam ne dañ koy joxe état mi ngi koy joxe léeg-léeg euh, surtout emploi yi fonction publique di joxe nekkoon nga ancien euh, ministre de la fonction publique kon xam naa li nga wax dafa confirmer rek li nga xamante ne xale yooyu ñu ngi koy faral di wax bu ñuy jàll ci suñu ay émission beneen bi mooy convention état employeur état day jàppale yenn entreprise yi mais gis nañ ne employeurs yi dañuy def lu leen neex seen i employé lu leen soob rek la ñuy def seen i employé dafa mel ni état foofu tamit évalué wul côté boobu contrôlé wu ko beneen bi mooy euh, le secteur informel bi nga xamante ni pratiquement 70 pour cent nañu lay créer ci emploi lan moo tax état ba léegi bu ñuy wax ne dañuy formaliser le secteur amul cette volonté quand même euh, jox gëdd le le secteur informel. li nga wax dëgg la convention état entreprise. man nekkoon naa fële ministre de l'emploi yàggumoo fa sax d'ailleurs mais kooku tamit dafa sooxe idée bi baax na mooy euh, xale yi nga xam ne dañu nekk ci école yi ñu war leen a jox emploi euh, léegi comme entreprise yi mënuñu leen jox emploi comme il faut am loo xam ne lii da koy dindi ci xaalis jox ko entreprise bi état mooy jël cinquante pour cent entreprise bi jël cinquante pour cent ñu am ay critères yoo xam ne moom la ñuy def mais boo ko seetloo man ba ma fa nekkee yàgguma fa mais gisoon naa ne entreprise yi ci bénéfice sax bëriwul mais en plus de cela état daawul daawul fay da ngay toog lu yàgg du fay entreprise yi de telle sorte que duñ am volonté ñoom it li ñu bëgg def ñu def ko <laughs> <laughs> alors <laughs> <laughs> alors yooyu yëpp moom il faut que ñu ñu ñu évaluer ko xool nan la ñuy def ba ba trouver des des solutions. est-ce que jëluñu xaalis bi ñu ci doon def léegi yóbbu ko yóbbu ko ci financement wu jeunes yi. ah xaw ma xaw ma daal fu mu ko def léegi <laughs> mais li woor ba woor mooy convention boobu moom def naa defaat nañ renouveler ko et cetera mais j'ai pas j'ai pas les informations là-dessus. secteur informel bi. loo wax beneen bi mooy. secteur informel ak politisation des emplois. ah oui loolu kay bon le secteur informel moom laa wax sànq. ak secteur informel mooy lan monsieur le ministre. secteur informel daal. Hmm. ñoom nee nañ duñ informel. c'est un grand débat nag. moom la ñuy bañ. parce que nee dañuy fay impôt. Ah. ñu ne leen informel et cetera. Ah. bon mais là n'est pas le problème. le problème mooy euh, comme j'ai dit tantôt mooy ñu bëri mënuñu defar état financier. secteur informel te état financier moom la la banque di laaj pour nga dem ñu ma ab lebal la mais ñun loolu bokk suñ culture. comme bokkul suñ culture nag bokk suñ aada bokkul suñ cosaan état moo war a def effort wax ak ñi nga xam ne ñooy BCEAO banque yi ne leen lii mënul dox parce que ñun da ngay dem fii marché Sandaga waaye ci ci ci kóolu tere la ñuy doxee. Mm-hmm. mën naa la jox 10 millions léegi nga dugal sa poche dem ñëw liggéey fay ma et cetera mais tant que encadré wuñ leen ba nga xam ne ñoom mooy li ma wax léegi il faut que mu commencé ci suuf jëm ci kaw ñu encadré leen di leen incuber progressivement ba ëllëg si biir ñu assouplir les conditions ñu mën a am ci financement yi bu baax mais bu fekkee ne mënuñu jot ci financement secteur informel ba pare bu fekkee ne euh, ni ñu ko waxee euh, les entreprises euh, petites et moyennes entreprises chaque année quatre-vingts pour cent yi dañuy dee. Hmm. téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi dañuy dee alors. kooku mënut a économie lu leen di rey état bi leen seetaan dañoo dugg ci luñ mënul dañoo manqué encadrement lan moo leen di fàtt moom moom laa wax léegi d'ailleurs d'abord mënuñoo li ci ëpp mooy mënul jot ci financement xaalis bi. li ñuy financé yëpp dañ koy jox les grandes entreprises ñu def ab seen ab xaalis ñu bu France ñu bu Turquie mhm. ñu bu Maroc mhm. bu président génnee bitim réew ñu tàcc ko ne ko tu vous êtes le meilleur président au monde mhm. alors que ñu ngi dee loolu moo fi war a jógee te y a des pour mu jógee fi ay réew wan nañ ñu ko y a rien de diable war na mën a dem ba ci man sama xalaat. Si État du Sénégal bu fekkee ne bu fekkee ne sax bu fekkee ne sax dañu am blocage avec la monnaie. ñu génn zone franc où est le problème. mais am na ñoo xam ne nekkuñ ci zone franc te ñoo ñu gën a jëm kanam bu fekkente ne absent dafa absent ñeneen ñi dañuy ñëw aussi occuper la place. le ah, secteur privé. l'État bu fekkee ne dimbale woo secteur privé ni nga ko war a dimbale. jàppale woo ko ni nga ko war a jàppale. nga préférer secteur privé étranger à ton secteur privé. mais bien sûr yow place bi alors que l'État dafa waroon accompagner de façon substantielle le secteur privé sénégalais c'est pas facile en faisant quoi du protectionnisme bon vous savez il y a toujours des mesures hein, de sauvegarde mu ñu wax waaye monsieur nangam nangam et cetera mm. bon mm. Euh, je suis du commerce hein, c'est mon métier mm. <laughs> il y a toujours des possibilités foo mën jaar pour protéger tes entreprises. sauf que boo yi ba ñu toog. tribunal international lañ lay nappee. waaw yooyu yooyu yooyu yëpp ay wax la parce que Sénégal fi mu jëm. mais je pense que surtout avant ayant du pétrole du gaz et cetera bon là aussi on peut en parler. les mm. les gens ont besoin ont les gens ont besoin de nous. Mm. et y a rien de nouveau lépp loo xam ne lii euh, ñi ngi koy proposé xëy na am na état yoo xam ne def nañ ko. maintenant nag volonté bi mooy des. ak njàmbaar gi. ak bëgg sa réew. Mm. bëgg sa réew mu jaral la lu nekk. bu fekkee ne nag yow da nga ñëw rek euh, boo xool. Euh, étant dans le pouvoir euh, yëf yi nooy ngay tukki dama ko ñëw et cetera bon euh, y a certaines yoo xam ne loo ko def. li ma jaaxal ci sa argumentation mooy da ne nañ ubbi ay banque de commerce extérieur. Mhm. déjà defuñ loolu CFA bi nga xam ne moom la ñu bokk ci zone CFA bi. biir zone CFA boobu nga xam ne dañ ko am ñu ko bokkal ba pare c'est une monnaie qui est garantie par la France eh, yow banque commerce extérieur boobu la mu war a def monnaie CFA bi moo koy def nga ne nañ ci génn te alors que li nga waxoon ne mooy préalable bi defaguñ ko. dama ne ñu ngi jëm Selekaf xam nga Selekaf. waaw zone de libre échange. zone de libre échange. continental af continental Afrique marché boobu un milliard deux cent maanaam milliards yi nit. ak ñaari téeméeri million ñoo fay nekk ñoo xam ne dañuy bëgg di lekk di naan di solo di voyager. comme euh, euh, français yi ak euh, du moins européens yi dañuy tëj seen marché xam nga xam nga suñ jafe-jafe mooy lan dañ naan la yow par exemple bu fekkee na ngay defar gerte. wala ngay defar café et cetera. ñu ne la bon yow sa café gii daal bu fekkee ne digaloo ci dara rek noonu ñu ngi ko jaayee buy dugg suñu réew du fay dara nga ne waaw. ñu ne nag léegi fekkee ne da nga def valeur ajoutée da nga koy defar kafe ba mu nekk ci pot nga bëgg koo dugal Europe mm-hmm. la ñuy wax progressivité des droits mm-hmm. ñu teg la ay daan yoo xam ne yi mm-hmm. mooy ëpp junni yoon li nga xam ne xëy na moo ëpp li ñuy teg kafe bi jógee Chine wala bitim réew beneen beneen beneen réew pour mu dugg ci marché Europe yéen a ngi comprendre de telle sorte que ñoom tubaab yi dañuy freiner suñu industrialisation mais où est la négociation ana suñu négociateurs yi na ñuy dem ci table ji. ah waa ñu ngi fi mais. luy xew ca table ja ay rapport de force la. ba pare tegal la ci ne bon léegi euh, il faut que mango bi wala café gi ngay defar jus bi ngay defar mu am norme nangam. na mel nii na mel nii na mel nii bu ci weñ tong waaw. de telle sorte que gerte gi am euh, kii de telle sorte que pour <laughs> nga def pour loolu danaa la ci wax dara après tout tout à l'heure <laughs> de que pour nga am yow euh, euh, produit industriel boo leen jaay c'est pratiquement impossible parce que dañuy faral seen produit ci wet gi waaw léegi nag ma ne la comme yëf yaa ngi soppee ko ñu am marché boo xam ne ñun africains yi ñoo ko moom muy un milliard deux cent millions individus kooku dañ koy waajal sauf que ñoom marché boob duñ ñu ko bàyyee de waaw mais ñun ñu waajal suñu bopp comme ñoo ko moom moo tax moom laa wax ne il faut que ñu les jeunes étudiants li ñuy génne université consort ñu commencé def de capitaines d' industrie former leen fii am objectif jëm ci marché unique africain parce que yëpp dañ koy waajal. Hmm. bu ñu ko deful li nga wax dëgg la dañuy ñëw jëlaat lépp accaparé wu ko. ma ne bu fekkee ne loolu ñoom dañu ko nar a xañ ndax seen ab xaalis muy franc CFA jar na Sénégal génn fa xam nga am na jamono président Wade bëggoon cee génn moom rek. Mhm. génn su génn la zone franc où est le problème. Mhm. Gambie ngi nii yore xaalisam mi ngi dem. Mauritanie Mauritanie ngi yore xaalisam mi ngi dem. Mhm. Nigéria mi ngi yore xaalisam mi ngi dem et cetera Maroc mi ngi yore xaalisam mi ngi dem. et ñu bëgg ñoo gëmloo rek tant que ñun amuñ xaalis boo xam ne France moo ko garanti mënuñoo dem c'est pas vrai il faut que ça cesse loolu mooy bëgg sa réew alors il faut que nag nit ñi tim di ñu déglu parce que. expérience yoo xam ne dañ faa jaar et cetera aflatoxine mhm. man nekkoon naa ministre bi yore mbay mi